xibaar yi ak euh, xibaar bi lay jëm ci jëwriñ ji féete ci wàllu wér gu ak dimbalante gi am na xibaar ba ay banqaasam daal di dëggal ñaari kaa yu bees ci wàllu coronavirus fii ci Sénégal bu ca njëkk doon ñetteel bi suñ ko xayma ci la fi nekk lépp genn soxna bu toll ci juróom benn fukki at ak juróom-ñett nekk dëkkoon foofe ca France waaye tamit doon soxna ki toll ci juróom-ñetti amoon ko ñetti fan ci mars am na ci ñeenteelu cas bi koo xam ne daal dafa cosaano foofe benn ressortissant anglaise la tollu ci fanweeri at ak ñett jógee ko ca Londres laata muy ñëw dakaar ñaar fukki fan ak ñeenti weeru février bi ñoom ñaar ñëpp ñu nga ci hôpital fan ca banqaas ya ñuy fajee ñu yor doomu jàngoro ji Maam Abdou Guèye Kassé ñeent nit ñoo amee léegi lii di jàngoroy coronavirus bi fii si Sénégal bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne nag Institut Pasteur moo ko jox àllarba ji ci ngoon ministère de la santé et de l'action sociale kaa bu njëkk bi ab soxna la ay atam moo ngi toll si juróom benn fukk ak juróom-ñett moom nag doomu France la moom mooy soxnaa su ñaareelu kaawu coronavirus bi te nga xam ne ay atam moo ngi toll si juróom-ñetti fukk ci talaata yi nañ ko daal di testé positif soxna si lée moo ngi yegg si fii si Sénégal si ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci wérum février atum 2020 ànd ak ki nga xam ne moom mooy jëkkëram boobu li ñaareeli kaa bi nag ab doomu Angleterre la ay atam moo ngi toll si fanweer ak ñett moom nag moo ngi bàyyeekoo Londres daal di yegg si fii si Dakar si ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum février atum 2020 bi ñoom ñaari way tawat yi nag daan nañ leen yóbbu ca service des maladies infectieuses et tropicales bu hôpital Fann foofu nag jamono ji nan leen dalalee ngir daal di saytu seen wér-gi-yaram lu jëm ci ñaari cas yu njëkk yi te nga xam ne dañ leen daal di déclaré positif si ñaari fan ak ñetti fan ci weeru mars atum 2020 bi ñoom nag jamono ji ñoo ngi leen di suivre bu baax rax ci dolli seen wér-gi-yaram moo ngi amélioré wu nànk-nànk ministère de la santé et de l'action sociale moo ngi wax askan wi que nga xam ne jotoon nañ leen a testé moo ngi toll si fukk ak benn te ñaari cas yu yees yi si nañ bokkoon ministère de la santé et de l'action sociale moo ngi dëggalaat pas-pasam ngir daal di aar li nga xam ni moom mooy askan wi rax ci dolli moo ngi koy woo mu daal di dal ak tamit daal di sàmm digle yi nga xam ne rek joxe na ko ngir ñu mën a moytandiku li nga xam ni moom mooy coronavirus bi. ñu koy jaajëfal Mame Abdou Gueye